النساء يبذلن أموالا لهم من أجل البهاء والجمال صلى الله عليه وسلم ku wëy di war warul lay toog di jéem a xaar ki la yaa saydi yaa cheikhana maa di sab géwél di la wëy baay dama gisut ku dul yow ku jar ma jóg di ko wëy ñii ma gis jaru ñuy sàkku ji xam ndax xamuñu way ko xamul ku ko laaj booba dolli ngaw réer muslu leen aji guy woote xam te xamuloo daw leen ko dana sànq yóbbu ko naari këram baay ñes sa doom yu baax yi nga yor ku ci jóg sunna si yonent la sunnati yónneen ku ko roy ñu du kooku la ñuy bëgg a roy sunnati yónneen ki ko roy ñu du kooku la baay sunna si yónneen ku ko ñu du kooku la ñuy bëgg a roy kay wuy ji ko moom moo di xudd bu diine ji baay leeral na diine ji ba tax ku nekk jóg ne manaa ka naan man la du moom waa ji du ne man la dañ ko naan mu di bañ bilaay min ka yow la kanaan man la du moom waajid wax ne man la dañ ko naan waxal mu di bañ salaamaaleykum amanten Dakar Buzz ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar ñu ngi fii nag ci Kaolack ni ma leen ko waxee rek waaye ci port bi nga xam ne fii la gan ñi di wàccee jaar ci yoonu ndox bi lii moo lay wan nag ni Baye liggéeyal na sunu borom liggéey boo xam ne euh, romb na Sénégal euh, comme ni ko mag ñi defee euh, ñu ngi ci poor bi mais nit ñaa ngi bàyyi koo fu ne Malick di wàcc ci dëkk bi ngir màggal guddi yonent bi waaye bàyyi daal yàlla nañu ko yàlla fayal waaye da a ki nga xam ne mooy xalifaam bi yàlla guddal fanam te bàyyi ko fi port baa ngi nii nit ñaa ngi bàyyi ko fu ne gaal yi euh, na si maa ngi lay nuyu waaw maa ngi lay fay tur bi nan la Ndeye Sali Diop Ndeye gi fan la jógee gaal gi mu ngi jógee jam ñaajo jam ñaajo ñu bëggoon a xam ak seen moo diggante naa Baye a ah, jeex ci Baye rek ba fu mu nekk rek ñu topp ko fekki ko fa waaw yegg si na noo jàmm nañu yàlla yóbbu jàmm waaw Vaal Vaal Vaal jeex na. ngeen kal gaal gi départ. 4 heures. 4 heures du matin. Hmm. ci ndox mi ngeen fanaan. ndox mi lañ fanaan waaye sant nañu yàlla ndax bàyyi ko jar. Hmm. voilà merci. tey kaay yow tam kaay kaay yow tam ñaari baat ndax yow eh, fekkee muccul eh, eh, noo tudd dina masque bi noo tudd. man Yaamu Fall laa tudd. Yaamu Fall ñu gis ngeen topp guddi gi. bàyyi lépp bàyyi seen nelaw ngir Maulana Baye seen digganteeg bàyyi lu waral ngeen bàyyi lépp. topp ndox mi. Baye moo ñu ko jaral ndax baay moo ñu xam loo xam ne xamuñu ko woon moo tax bu ñu fanaanoon si géej gi sax baay moo ñu ko jaral moo tax ñu ngi dëkk ba jam ñaajo foofu la Baye njëkk a wàcc ci île bi foofu la fanaan suma papa moo ko wàccee woon moo ko bootoon wàcc ci suuf. papa nu tudd. man El Hadj Fodé Fall. waaw kon yow doomi seex la waaw man doomu seex laa kay. kon daal ñëw ngeen pour gàmmu yàlla defal ñu ci jàmm ñu ñibbeeg jàmm waaw. jërëjëf Malick ni ma la ko waxee am na geneen gaal gu ñëwaat geneen gaal a ngi nii di dikkaat gii nag gii nag gaal la goo xam ne gaal yi nag Malick bokkul a gaal yi nga xam ne jooy dem Espagne yii gaal demunu Espagne demunu Italie yii gaal danoo ñëw pour gàmmu si ngir gën a feeñal liggéey ka xam ne mooy Maolana Baye mu liggéey ci l'islam bi loo xam ne yaakaar naa ni ah, nit dootu ko fàtte ndax diggante Nigéria Cameroun Bénin boo jëmee ci ci centre Afrique bi baay toj na fa nga jëm ci mbeex mi Baye toj na fa kon gis ngeen ni baay liggéey xam ne moom la ñage dine lislaam rawatina li nga xam ne moom la yeggale mi suna Seydina Mohamed ah, ah, ñag yaa ngi ñëw ah, làkk bu ne ngi ñëw waaye yoonu ndox maa ngi di nga am na geneen gaal gu teer nii boo xam ne ñi gi droite si te geneen gaal a ngi nii kon daal waax bi daal gaal yaa ngi wàcc gaal yaa ngi wàcc gaal yaa ngi wàcc gaal yaa ngi wàcc gis nga nii ña ca def photo Baye waaw Malick ni ma la ko waxee ñu ngi fii ci waax bi waaye xam nga gàmm gi dafa tombé muy période Covid ma fekk fi góor yàlla bi mu yor gelam ma bëgg koo laaj euh, euh, yan matuwaay lañ jël fii ci port bi ndax gis nañ gan fi wàcc ci bari nañ ginnaaw bi ma la nuyoo. waaw fay naa la sëñ bi baax laa tudd Mbagnick doon na. Mbagnick ñu fekk la nga yor gel li fi wàcc ci waax bi bari na yan matuwaay ngeen jël yen ñi nga xam ne yéen ay jàppale nit ñi ñëw ci waax bi fii pour mën leen ci biir dëkk bi. waaw comme ni ko président waxee rek mesure barrière yëpp daal lañ jël yor suñu gel nii comme gaa ngi dugg fi nee nañ nañ takk masque yi diwoo gel boo bëggul diwoo gel bi itam si wa ndox baa ngi nii nga raxasu boo raxasoo ba pare ñu jox la musuwaar nga nga fomp boo paree ñu jox dem jàll ci gaa ñu jox la xéwal gi noonu la ko président waxee yaakaar naa. kon daal képp ku wàcc gaal gi rek ñëw na fi jaar na ci yow. képp ku wàcc gaal gi fii jaar na fii ci nit ñi ma gis jaar nañ fii buñ buñ fi rëccoo itam am na ñu nekk sama ginnaaw ñu ngi doxal niñ ko waree noonu la ko président waxee ñu ngi jëm itam kéem luñ kéem kattan daal ñu ngi ko ciy def waaw di ci sant yàlla a baax nag euh, ñu itam a liggéeyal lañu ndax comme ni nga ko waxee lañ koy defee da nga naan koo ci woo du ci teg benn boot day ko ni nga mu laal sel raxasu noonu la ko dañ ban message ngay wax ci gan ñu respecter mesures yi ndax ku ne xam ne ne période Covid la nekk ban ko président ko góorgóorlu jéem te ñu ngi koy def sax li ma gisagum nii koy def xaw ma nag ca biir la ca jàll ca biir naa ne dinañ euh, ko doxalee noonu li si président wax daal nañ góorgóorlu jéem a jéem ko jëfe noonu noonu ñu góorgóorlu ci bu baax a baax nag waaw ndax liñ jot a gis moom sant yàlla bu baax a baax waaw liñ jot a gis moom sant nañ ci yàlla bu baax a baax te am nañ yaakaar na itam noonu lay continuer incha allah kon daal ku wàcc fii raxasu laal gel day daal dem fee jox ko kon maa ngi leen dem ci ndékki yi ndax ku ne gàmmu tam ni bernde te balaa ngaa bernde faaw nga set ginnaaw bu ñu laabalee loxo yi dañuy dem fee ñu bernde kon nañ yegg ci gaa yi bernde waaw Malick li ma la ko waxee rek ñu ngi fi ba tey ci waax bi euh, euh, ma gis fi loo xam ne nag daanaka mooy baasu liggéey bi ndax boo xewluwul doom kàttan pour mën a màggal guddi gi waaye fekk nañ fi ñoo xam ne ay ndaw lañu boole li nu am ngir ku wàcc ci waax bi rek ñu mën laa jox bernde nga lekk dooro di egg sa daal dama fi fekk kenn soxna yi dama ko laaj ñu mu tudd door ko laaj lu waral lii soxna si maa ngi leen nuyu. maa ngi lay day amee euh, ñu gis ngeen def initiative bu rafet boo xam ne képp ku wàcc ci waax bi rek waax bi rek jox ngeen ko mu lekk lii nan la idée bi nan la ñëwee ci yéen. waaw initiative bi nag waa chambre de commerce bu Kaolack ñoo ko ñoo ko initié ci digalu président Serigne Mboup ak son secretaire général Ablaye Thiam ñoom ñoo xalaat bi ne gars yi dañu daan ñëw di gàmmu si bu ñu wàccaan fii rek dañu wàcc rek dem Medina Baye gars yi nag ne bu ñu wàccee fii ci waax bi war nañ leen moom mën defaral luñ lekk. naan toog tut dallu doo ko dem na Baye loolu moo andi lii yaakaar naa ne bu ma juumul bi mooy cinquième édition xaw ma sixième édition nii daal lañ koy defee chaque année waaw. at bu ngeen at mu jot bu ñëw si wàllu gàmm moom dañ koy def fii fi ñu koy def. liggéey bi ndax dana yomb ndax ñiy wàcc ci waax bi bari nan ba ñëpp ngeen bëgg leen satisfaire. yombul yombul mais dañuy jéem rek surtout ren bi nga xam ne yombul nag contexte bi contexte Covid bi ñëpp xam nañ ñi mel mais jéem nañ boo ku wàcc jox la masque jox la gel teg nañ fi ay raxasu gars yi def lépp daal waaw. kon daal ni ngeen ko fas yéenee ba keroog gàmmu gàmmu gi jeex. incha allah waaw. jërëjëf Malick dégg nga lim ci wax lépp mboolem ku wàcc ci waax bi rek boo jemee ñu jox la nga raxasu ñu defal la gel sa loxo fii ngay jaar daal ubbeeku loolu nag mooy ubbeeku ndax nit bu xëy day ubbeeku laay xam na li may wax nit bu xëy moom te ubbeekuwul sax yaram wi du firi kon ba tey ñu ngi ci wax bi rek di leen bàyyiloo xel nga xam ne mooy gàmm gi dara du leen ci rëcc nag ci Dakar Buzz yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na ñëpp am jàmm yàlla nañ ko téewee négé di déwén waaye daal li ci wax bii ah bàyyi liggéeyal na yàlla de yàlla nag suñu borom fay tamulaaw si ñun jërë ngeen jëf ci Dakar Buzz jigéen ju bëgg sëy sa jëkkër mënut yow laa wax Moustapha dem wuti ku la mën a yor bum la tardeel Cheikh Baye ku la bañ du loole yàlla la la bañ sa xam yàlla di ko xam le lii la bëggoon mënu ko ko am kon jigéen a ku la bañ du loole yàlla la la tey nga xam yàlla di ko xamle la bëggoon mën a wax sa mbir jalaw ba dootu peer moo wal fe mbootum chambre à air bari roogu dem ci yow la jaar wala sa Gambia goyoor maam Abdoulaye ay bàyyi baay kan mooy ndeyam neel asuwaay Cheikh Abdoulaye Mbuutu Baay cey Astou Sarr mooy soxna baay hay junga ngóob duma ko laal na xel yi daw ngir mën ko seet ndax dundi baay pësin la daal baay fii mu jaar doy na misaal ab doy jaamab sariyatu doy satu faydum du xam xaqiqatu cay mbooti faydu mooy satu jam bi dundal shariatu te mooy dundal xaqiqatu aboodi bi bàyyee atu atoo fi man bàyyee atu kartu ku jël aasa jaman aasi aasi min ci bàyyi sëriñ si yéen laf fi naaree xaw sa aw sa barki bàyyi Ibrahima moo ñu xamal ngi am benn baay ñëpp laam ku weex ku ñuul moo sut ci xam sa maamay maam abiba la moo ñu xamal baay soppe la baayay xubbib yàlla walaay baay mooy abib abiba la sa maama tudd ma machine moo ñu xamal baayay machine baaya taxal faydu ci siin ñas yow suleymaan ngay wane sa maama tudd maam nga jiw moo ñu xamal yaay nga ji baay yaay nga ji lii sëriñ si ji yow liñ fi ji duñ ko gëj riddaaka biir ne baay riddil yaay riddi ñor di yaay yënga nisaa yabzulna amwa lan la min ajli albaha wal jamaale sallallahu alayhi wa sallam